beneen mooy. waaw dinaa maye Lamine loo xam ne anticorte la ku ne na ko jéem a laal. Uh-huh. ku ne na ko jéem a laal. ba jéem koo génnee tey ci biir plateau bi. wasaatu ilayhi zikri wasira jande a jande sunkutee mangala yaabi daabiri daa xati xaa wata xaa wurdaayi maxtaa fin fada garasio nan soo xale joxe joxe ajum la joxe sëñ bi lii la kii anticorte la anti jinne la kuy daanu na laal la leen waay képp koo xam ne yaa ngi am jafe-jafe na laal waaw képp koo xam ne yàlla def na nga am jafe-jafe fi nga ne ñu kortu la wala ñu liggéey la wala feebar bu doy waar damay ñëw ba ci yow wala ma envoyé ko nga laal ko boo ko laal da ngay jóg waaye lii bopp bi ni mel nag kii bopp jaaru ñongul bopp jaaru ñongul euh. am na loo xam ne mënu ma faa yegg ak yéen ci bant bi mais en tout cas lii moom mosu leen koo gis ci benn écran te fii ngeen ko mos gis waaye du bant kese lii du bant kese anti bii laa bëgg a indi pour dimbalay gars yi kii sax ku bëgg dara ci wàllu nguur ñëw rek ma laal la ko kii ku bëgg a toog ci réew te ngir dund ñëwal ma laal la ko ba sa jot yaay dem ba bëgg a bàyyi nga bàyyi ku bëgg a falu président de la république ñëwal ma laal la ko dama lay téye nga laal ko am na fu mooy ànd ak yow ci géej waaw dañuy dugg ba ci biir géej gi bu dee yow maanaam Ziguinchor nga dëkk géej Ziguinchor la jëm bu dee Fatick nga dëkk géeju Fatick lañ jëm bu dee Dakar nga jëm parce que géej gi dafa am ay rawaan yoo xam ne dafa composé te lii dafa composé lépp luy xaalu pay yàlla bi ah, dañuy dem ba ci digg géej gi maag yow 4 heures du matin foofu lañ koy samp am lu ñu wax lu wax ci biir média boo ko defee incha allah rabbi bu dee loo bëgg ci réew moom boo xasee ba samp bu ñu génn si géej maa dem tëdd bu ñu fa demee élection yow yaay gañe hmm? ak loo mën a doon anti la ci lépp xeex la ci lépp hmm? baati la ci lépp yëngu ci lépp mystique la ci lépp xare la ci lépp jërëjëf mu ngi nii ñëpp gis nañ ko maa ngi koy nabaat wasalaam